أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونصلي ونسلم على بشير النظير محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ñu ngi ànd ak yéen ci kitaabu tawxid di jël tomb bi nga xam ne mooy maa jaa ann sababu kufri bani aadam wa tarkihim diinahum huwa alxuluwu fi salihin bunt bi nga xam ne boroom xam-xam yi nee nañ li tax doomu aadama yi weddi bàyyi seen diine li ko waral ñaar yooyu weddi yàlla ba pare bàyyi seen diine ñaar yooyu boroom xam-xam yi nee nañ bokk na ci li ko waral huwal xuluwu fi saalihiin muy ëppal ci mbiru nit ñu baax ñi jël ku baax di ko tagg di ko yéegal di ko màggal di ko bàkk di ko jay ba ëppal ko fi nga ko waroon a yemal loolu mooy sabab ci jullit yu bari tey weddi yàlla loolooy sabab ci jullit yu bari bàyyi seen diine kon bunt bi dafa bokk wala mu nuroo ci lenn ci ay bunt yu paase ci danger bu mu am te tey ku doon càmbal sunu mbiru réew mi da nga gis ne tomb bi dëgg-dëgg ci waxtoom lañ nekk ndax dégg nga fi kuñ ne yàlla la dégg nga fi kuñ ne dégg nga fi kuñ ne nit moom buñ ko jëlee di ko yëkkati di ko yëkkati ba ne ko yàlla nag foo la wax jéem wala wala am na leen lu gën a rëy loolu waaw léegi li gën a tuuti mooy bu ñu yëkkatee lenn rek yóbbu nañ ci yàlla léegi kay ay ay yonant bi moom romb naan ko ñun moom la kenn waxatu ko loolu nag mbokk yi musiba weesuwul loolu looloo tax doomu aadama yi bàyyi seen diine te ku bàyyi diineem doo yem ci loolu waaye da ngay weddi yàlla te ku weddi yàlla léegi da ngay nekk yéeféer loolu moo tax borom bi subhanahu wa taala dinu dellu si ci suratu nisa aya 171 borom bi subhanahu wa taala mu ne ya ahlal kitaabi la taxlu fi diinikum wala taqulu ala allahi illa alxaq loolu la borom bi nee na yaa ahlal kitaab e yéen ñooñu téere yéen ñi yàlla wàcc ci yéen ay téere fii aaya bi liñ ci namm almuraadu bihim huna li ñu namm ci ñoom fii ci aaya bi mooy annasaara mooy chrétien yi lu tax ñoom ci ahlul kitaab lañ bokk ahlul kitaab saa yu ko déggee mooy nit ñi nga xam ne yàlla da leen a yónnee yonent jox leen te loolu ñoo ñooy ahlul kitaab mooy ñooñu téere yéenay wax les gens de livre mooy nit ñi nga xam ne dañ leen jox téere yàlla ne yaa ahlal kitaab nga lawaay laa taxlu bu leen ëppal ndeysaan alxuluwu tajaawuzul xadd ëppal mooy lan mooy ëppal ci olof ëppal ci olof mooy lan kii nit ku ëppal la lépp ëppal baaxu ci jéggi dayoo mooy fi nga waroon a yem même fayu sax yàlla te yàlla fayu bu ëpp yàlla def ko tere li nga def fa man i'tada aleykum faatadu alayhi bi misli ma atada alaykum lim la def rek nga koy def waaye mu non loolu yàlla sax daf ko tere gis nga parce que bañ ko ëppal moo tax yàlla woo waa ahlul kitaab mu ne leen laa taxlu bu leen ëppal mooy mujaawazatul xadd ëppal fi nga waroon yem li shay'in nga ëppal ci dara fi nga waroon yem nga romb ko lan moo tax borom bi subhanahu wa taala woo leen ne leen yéen ahlul kitaab bu leen ëppal wala bàyyi leen ëppal mu ne fa isa alayhi salaam abdullahi wa rasuluhu ah fa gallu fiihi isa alayhi salaam jaamu yàlla la yonentab yàlla la waaye dañoo ëppal ci mbiram fa qaalu huwa allah ñu ne mooy yàlla wala ñu ne mooy doomi yàlla déjà ci waxtu yi lañ toll nii sax tey tey mooy fête bi yaakaar naa démb ci guddi li la gaa yi doon da ko gaa yi doon màggal ne démb la judd kuy baayam ñu ne yàlla loolu garaaw na de ah loolu garaaw na trop yàlla mu ne awma jabar ñu ne ko am nga doom loolu mooy lan awma jabar ñu ne la am nga doom yow tey boo demoon seen koñ ne awma jabar mais ñu ne la am nga doom allahu akbar la ilaha illallah yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na saaga bi gën a rëy bi ñu saaga yàlla mooy loolu awma jabar mattaxaza saahibatan du loolu la jox yàlla nee na awma jabar wala doom awma ko mattaxaza saahibatan wala walada musuma am jabar wala doom ndeysaan mu ne leen wala taqulu la taxlu bu leen ëppal ndeysaan dañoo ëppal ëppal gu bona bona bona bon ñu ne yàlla moo jur isa moo tax yàlla tuddee leen ci alquran addaalin ñu réer ñi da ngay jàng fatiha mu ne gayril maxdubi alayhim waaw daal al maxdub alayhim ñooy yahud addaaluun mooy chrétiens yi mooy nasaraan yi lan moo tax ñee yàlla mere leen yàlla daneen jox téere ñu bañ koo jëfe ñii la moo tax ñu réer dañoo utal yàlla doom kon li yàlla di tere ahlul kitaab mooy ëppal jël nit rombal ko rombal ko rombal ko ba ne doomu yàlla la bu dee yahud yi ñoom tam dañoo ëppal ndax ñoom lan lañ wax ci isa ñenn ñi dañu ne njabarkat la woon ñenn ñi ne doomi njaaloo la hasbunallahu wa ni'mal wakil lan lañ yàlla musal ndeysaan wala iyaazu billah lan lañ yàlla musal ci li seen wax ñu ne isa doomu njaaloo la ñoom tamit ëppal nañ kon ëppal yàlla daf koy tere ëppal lu mu dugg mu yàqu te tey lool moo yàq suñu diine ñun julliti Sénégal danoo ëppal ci lépp nag ci lépp da nga ciy gis ku ëppal waaw te ñun yàlla bi mu ñuy tàgg ñun xeet wi daf ñu waxoon ne daf ñoo waxoon ne kon daal vraiment waroon naa may portable yu ma teg fii di ko joxe yàlla bi mu ñu teg ci alxuraan lan la waxoon ummatan wasatan xeet bu nekk ci digg bi ngeen ci digg bi ummatan wasata ci digg bi ngeen nekk du ngeen ëppal lépp looy def rek yonent bi ne xayrul umuri awsatuha li gën ci mbir yi mooy nga digg doomu nekkal ci digg bi mais ëppal ëppal baaxul ci dara lu mu dugg yàqu ko loolu la yàlla di woo ahlu kitaab naan leen laa taxlu fii diinikum bu leen ëppal ci seen diine même diine xattaat ñun ñii sax yenn saa nga gis ko ëppal buy sujjóot buy rukkoo day taaweeku fële ni nii loolu baaxul bu taxawee ne du dagg du dagg topp baat bu neex bu rukkoowee du sigi loolu baaxul ëppal baaxul ibnu mas'ud dafa mës a jiite saxaaba yi gée mu geestu gisul kenn ginnaawam am ñu lem seen sijaada ñibbi ñu naan leen yéen da ngeen a alko yéen ngeen di julli di ñibbi ñu ne waaw ñun du nit ñibbi parce que mënuñu taxaw yéen taxaw yi yonent daal di leen woo ne leen lan la ñu ne ko ibnu masud jël baxara bu bu bu ko jeexal benn rakk ñun mënuñu ko taxaw yonent bi ne ko aturidu an takuna fatan da nga bëgg a fitnaal nit ñi yow boo jullee doo gàttal julli gi boo julli sa bopp nga guddal gis ngeen ëppal baaxul ma ne yàlla waxu ko waa ahlul kitaab rek pour ñu ñu jàng ko ahlul kitaab te ñun ci lañ boobu lu tax fii diinikum la leen wax lan yushaada ahadun hada diin illa galaba diina ji kenn du ko ëppal lu dul mu noot la soo ëppalee diina ji rek mu noot la da ngay gis yenn saa yi ko yor kurus di wirde su ëppalee fu mu jëm day dof ñaata yéen ngeen ko gis ku ñu ne dafa wirde dof ah aywa yonent bi dafa génn fekk benn soxna mu yor buum takk ko di julli bu taxawee ba taxaw bi sonn mu jàppandu ci buum bi yonent bi ne ko xuzu min al amali ma tutiqun jël leen lu ngeen mën fa inna allaha la yumillu hatta tamallu yàlla du yokkat lu dul ngeen yokkat jëlal loo mën du forcé da ngay naafila taril loo mën taxawal loo mën boo sonnee nga rukkoo boo sonnee nga sujjóot boo sonnee nga toog boo sonnee nga toog julli toog julli sax dagan na te li garaaw nag mooy da ngay gis kenn ku ëppal koo xam ne li mu nekk daf cee bëgg a yóbbu ñëpp te nit ñi yemuñ benn waaye nee na ma damaa jiite am ko xam sama ginnaaw ma ne ko yow moom ndax loolu ma def dafa ëpp wala ëppal ma ne ko loolu kay kenn waxatul ëpp jiite ba am ko taxaw xam loolu musiba la kon yàlla nee nañu laa taxlu bu leen ëppal fii diinikum seen diin waaye tamit bu ñu yàlla ne bu leen ëppal tekkiwul ñu néewal comme yéen itam dañ tàmm néewal dem benn benn benn waaye nee na ma waaw jàng faatiha rek daal ne xawaf pour ko ndax loolu di julli la ma ne ko du sunna ndax yonent bi mus ko def te alxuraan bi ci moom la doon wàcc wala jàng ngeen fenn yonent bi jullee na xawaf kese amul te alxuraan bi ci moom la doon def donte ne alxuraan moo ñu ne faqra'u ma tayassara jàng leen lu ngeen mën lu ngeen teewlu mais yonent bi saa salaam musta julli daal ne nuun ruko xoolal nga gis benn jàkk boo xam ne dañu ne ilimaan bi dafa mën a dafa mën a guddal yow ku mën a guddal nga di di kaas da nga mën a guddal waaye xaaral nekk ci ay tànkam bu ko folli quoi mu tiit mu ñëw jiite rek daan ne mudahammatan daal di rukkoo pare rek benn waaye ne ko gis nga li ñuy wax ci yow gis nga gis nga ni mu guddee mu ne ñaari ñaari baat laa wax ñu ne ko lu tax waxoo benn gis nga mooy nit ñi munoo leen topp ñoom tamit ba def seen bànneex kon yow da ngay def li nga xam ne yaa ngi ci digg bi parce que ñëpp munoo am lu leen neex ëppal dañ ñu koy tere te tey diine Sénégal bokk na ci lu ko yàq muy ëppal billaahi wallaahi léeg-léeg nga gis ay nit yu nekk ci tali di daw def tànku neen ñi ne lan la nga dégg ñu ne benn waaye moo nekk seen ginnaaw di ñëw yenn saa sa nga dégg ñu ne dañoo yëkkati oto bi di daw ak moom loolu ci lan la bokk jànguñu fenn ñu ne yor saaba yi mos nañoo yëkkati yonent bi fab ko pourtant moo ci yeyoon wala est-ce que yeyu loolu yi saaba yi yëkkati yonent bi di dox ak moom mu bañ a laal suuf yeyu ko woon ay danoon dox ci suuf si bal sax dafa war mbaam bal sax mbaam bi mu teg ci nit allahu akbar fii tey gars yi bu ñu duggee oto duñ ci yóbbaale nit wala tontuwu leen de ma ne fii am na si ñoo xam ne bu ñu am seen oto ñoom kese ñoo ci dugg kenn du ak chauffeur bi wala yonent bi moom dafa yor mbaam yóbbaale nit wala jàngu leen hadis bi kan la ah kan la yonent bi toggoon ci mbaam laa ilaha illallah laa ilaha illallah ay way sama kado yi mbokk yi loolu kenn du ko fàtte du soxna de dafa am sahaaba bu mu toggoon ci mbaam ni mu siiwee moaz mu teg ko ci mbaam di ko jàngal teg ko ci mbaam mi ndeysaan sallallahu alayhi wa sallam xoolal waxuma sax mu war gëléem waxuma sax mu jëli fas est-ce que amul woon jamonoom mu ne fi ñukk ñaar yooyu war mbaam waxuma sax moom kese mu war ko waaye mu teg ci keneen wala te fii da ngay dégg ñu ne ku sant saar du war mbaam wala jàngu leen loolu ku sant caam du war mbaam balaa loolu mu war nit war nit yonte musta war nit te yonte bi yeyoon na mu war nit billaahi wa yeyoon na ko te bu doon saxaaba yi diggante sama kër ak jàkka ji bu ma koy dox na ngeen may fab wallahi julli juróom danañ ko fab yëkkati ko ci kaw billahi lazi laa ndax gars yi bëggoon nañ ko bëgg boo xam ne bëggoon nañ ko bëgg goo xam ne su ne woon kenn ci ñoom dee ma yëkkati si di ma boot di ma indi kon juróomi téeméer nit dinañ reyante loolu leen di sallallahu alayhi wasallam gajju na nàmp na am ngeen gajju nàmp talu dindi deret ci yaram bi jox ko benn saaba demal def demal nga këpp ko bu nga def ko fu ko kenn gis waa ji tourné koñ naan ko ndeysaan moo tax ba mu nettali yonent dina ko ay nit dinañ alku ngir yow ñi la nar a rey dañoo nar a alku foo denc yëf yi mu ne fu ko kenn dul gis mu fëgg dënn bi xam yàlla wax na ko ne waaj da koo naan xoole kooku kon ëppal baaxul ci lépp nag rawatina ci diine moo tax yàlla ne leen laa taxlu bu leen ëppal fii diinikum ci seen diine ngalawaay wala taqulu bu leen wax alallaahi ci yàlla illa alxaq lu dul dëgg bu leen wax ci yàlla lu dul dëgg nit jullit suy waxal yàlla na wax dëgg bul fen bul raay comme gis nga même sunu daawa bi tey bokk na ci la ko tardeel muy bëgg bëgg négocier ak nit ñi bëgg leen raay bëgg bëgg bëggoo saa yoo nekkee kuy wax ci diine te bëggoo kenn mer bu yàggee da ngay nekk naafiq naafiq ngay nekk bëggoo kenn mer bëggoo ñu nekk ci stade bi mer bëggoo ñu nekk ci jàkk ñu mer léegi looy wax mais ñaari mbooloo yi am na ñu nekkul ci dëgg wala wala ñoom ñaar ñëpp ci dëgg la ne ah te loolu mooy dëgg bi saa yoo waxulee li yàlla wax da ngay nekk naafiq mooy muzabzabina bayna zalik laa ila haula wala ila haula bokkoo fen mais loolu musiba la lan la yàlla wax dëgg dafa leer man saa fal yumin man saa fal yakfur wala loolu du alxuraan yàlla ne dëgg baa ngi nii ku mu neex gëmal ku mu neex wedd waaye nañ wax dëgg bi après nag ku mu neex jël mais buñ ne ah déedéet dëgg bi buñ ko waxee du baax waaw benn waaye nee na pénc moo dem ñu fay wër dëgg suba ba ngoon dëgg bi mënul feeñ kilifa moo fa juum déggu leen ndox bi de kër goo dem nit ñi toog ñuy seet dëgg bi fan la nekk te kenn mënu koo gis boroom kër gee juum te kenn ñi mu ko wax ndax buñ ko waxee kenn du añ dañ fay nekk rek naan waaw c'est que xam nga mbir mi moom kenn du wax dëgg bi c'est que moo rek ku jël rek c'est que moo xam ngeen affaire bi moom waaw rek di junju rek kenn du ñeme ne eh loolu nag musiba la te bu ñu demee léegi ba diine bi loolu des kenn ñemewul wax dëgg lu tax parce que yow ci fen nga toog kii ci fen la toog kii ci fen la toog kii ci fen la toog léegi nag bu ngeen di waxaan yéen bu ngeen dajee ku nekk rek ci kaw la ñuy wax kenn du kenn du laal mbir mi te xam ngeen ne wallahi Sénégal gi li ko sànq ay feni kese la Sénégal gi li ko sànq mooy bañ a wax jaam yàlla bi dëgg jaami yàlla yi bañ leen wax dëgg kese moom moo tax ñun ñu alku mu ngi nii fi mu nekk ni xool leen li fi programme diine ci Sénégal daanaka bés bu nekk nga dégg ci rajo yi ñu ne lii la ñuy def tey lii la ñuy def ñu ngi gàmmu ñu ngi màggal ñu ngi ziar su fekkoon ne yooyu yëpp jaami yàlla yi dañ leen di wax dëgg bu leer bu jógee ci alxuraan ak sunna dëkk bi dina mel nii mais na ñu lekk rek kaay leen ñu lekk kaay leen ñu naan juróom fukki giléem téeméeri nag fanweeri béy juróom-ñaari ginaar kireen boisson banana pomme nit ñi ñibbi ak a neex nag yaa ngi dee cere yi ñu ngi koy mooñ lii est-ce que diine la lekk rek agañ lekk lekk dundal yaram yi bàyyi ruu yi bàyyi pas-pas yi bàyyi aqida bi loolu musiba la fokk jaami yàlla yi buñ bëggee yàlla am ci ñun ngërëm suñ leen dajalee ñu ne leen yàlla nee na yonent bi nee na sallallahu alayhi wa sallam yonent bi daawul dajale nit ñi rek pour lekk di rey rek musul am musul am yonent bi sallallahu alayhi wa sallam gis ngeen même ñi mu yar gisoo ci ko ëppal ku ko ne yow yàlla nga di la parce que daf leen woon dëgg bi daf leen wax dëgg xamal leen ne moom yonante la innama ana abd dars baa ngi ñëw ci tomb bi buntu bi dars baa ngi ñëw ci kanam innama ana abd fa qulu abdullahi wa rasulu man jaam laa ne leen ma jaamu yàlla yonenti yàlla moo tax yàlla ne leen wala taqulu bu leen wax alallahi ci yàlla illa alxaq lu dul dëgg li alquran la alxaqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin dëgg yàlla moo ko moom bul déngi déngi nii di hésité di hésité dëgg yàlla kenn du ci hésité waxal dëgg bi inna allaha la yastahi an yadriba mathalan ma baudatan fa ma fawqaha yàlla ci boppam amul kersa ci wax nit ñi di leen léebal di leen wan ay misaal sax ba jox leen yoo parce que dëgg rek la bëgg na dëgg bi leer mu ne leen innama almasih waa jooju ñu naan jésus kooku ñu naan messi kooku ñu naan raay mu wér te mu tudd isa nekk doomi mariam rasulullah yonent yàlla la lii leer na wala leeru dafa leen ne doomu yàlla la du doomu yàlla dafa ne doomu mariama la moom du lenn lu dul rasulullah yonent yàlla la ndaw la lu yàlla tànn ci biir jaam yi yónni ko kon kenn ci yéen warul rep ba naan doomi yàlla la wala yàlla ji def boppam nit léeg-léeg dimanche bu dégloo rajo sa yaram day daw yàlla ji def bopp boppam nit doomi yàlla nangam nangam feni kese du doomu yàlla wa kalimatuhu mu ne baatam la alqaaha ila mariam bu mu sànni ci mariam ay baatam la kàddoom la bu mu sànni ci mariama alayhi salaam wa ruhun minhu ruu la bu bàyyeekoo ci borom bi subhanahu wa taala bu mu dugal ci mariam isa daal di juddu mu ne fa aminu billahi kon gëm leen yàlla wa rusulihi ngeen gëm yonentam yi wal ngeen fii lan la waroon wax normalement fa aminu billahi wa rasulihi gëm leen yàlla gëm isa loolu la waroon wax parce que ci mbiru isa lay wax wala waaye mu ne gëm leen yàlla gëm yonentam yi ñoom ñëpp ñoom ñëpp la ñuy bokk gëm boo ci weddee kenn weddi nga yonent yëpp yonent benn boo weddi yonent yëpp nga weddi soo gëmee yonent benn bàyyi ñeneen ñi baaxul laa nu farriqu bayna ahadin min rusuli yi du ñu tàqale yonent yi ñëpp la ñuy gëm waaye nag ñun dañoo am royukaay dañ koy gëm de Isa dañ koy gëm waaye lan la ñuy gëm ci moom doomu yàlla la déedéet lu ñuy gëm ci moom ne yonent jaamu yàlla la yonent yàlla la mu ne wala taqulu bu leen wax thalathatun ñett la au nom du Père au nom du Fils et de Saint-Esprit mu ne bu leen wax loolu wala taqulu bu leen wax thalathatun ñett lañ allahu akbar la ilaha illa allah mu ne bu leen wax loolu xoolal yàlla subhanahu wa taala alxuraan dëgg-dëgg waxu yàlla la baa di sax ni mu koy tegalee boo koy jàng da ngay yëg ci biir cafka bi mu leen ne bu leen wax ne ñett lañ ba pare xam nga lu mu wax intahu waay waay waay day talu leen waay waay arrêté leen waay bàyyi leen li ngeen di wax intahu arrêté leen jeexal leen li ngeen di wax xayrun lakum mu nekk jàmm pour yéen wala ah léegi nag li julli dañ ko dégg ba pare di feetu 24 tey jii am na borom bitig yoo xam ne sax ubbi wuñ est-ce que ubbi ngeen tey yéen jaay ngeen tey waaw yéen bokk leen ci kon ah am na atelier yoo xam ne xëyuñu tey am na école yoo xam ne jànguñu tey ay école islam yoo xam ne jànguñu tey dañu feetu ah ah est-ce que loolu rafet na ñu nekk jullit di feetu jour 24 di bañ a xëy la ilaha illa allah lu tax xëyoo non day feet la feetu kan feetu kan la feetu jullit suñu feet luñ fay luñ fay xaaraani yàlla fay ah inna lillahi wa inna ilayhi rajiun yàlla ne bàyyi leen li ngeen di wax mu nekk jàmm pour yéen maa ngi leen di yëgal ne innama allahu ilahun wahid innama li wóor tey mbir allahu yàlla ilahun waahid kenn la subhanahu sell ñeel na ko an yakunu lahu walad muy am doom waaw ndeysaan sell ñeel na ko moom yàlla xam ngeen lu tax yàlla du am doom lu tax yàlla du am doom mooy doom ku ko am da ngaa manqué mbirum doom mbirum bànneexu rabu àll la mbirum doom mbirum rabu àll la rab rab rab mooy am doom rab na gaay yi naan ma xanaa ko nu ñun ay rab lañ waaw ay rab ngeen ah yàllaa ko wax de du ngeen ay daaba wa ma min daabatin fil ard ñun ay daaba lañ même tubaab bi dañ naan doomu aadama lom ah ah doo wax ci kaw lom mala la tubaab bi sax war nañ ko wax malaak nag allah subhanahu wa taala waaye ban animal bu bu intelligent bu civilisé bu tegu ci yoon bi loola rawee ñeneen ñi même sunu borom subhanahu wa taala bi mu defee doomu aadama mu nekk loolu ba pare def ko defal ngëneel pour lan pour doomu aadama moom mooy sangu humanité bi kon warul nuroog ñeneen ñi waaye kañ su fekkee li ko yàlla jox ci intelligence xelam ak connaissance utiliser na ko mu nekk koo xam ne kawe na doomu rabu àll yi su fekkee ne loolu yàlla jox ko ci intelligence ak connaissance def ko fawe su marana naahu ulaika kal anam bal hum adal wa ulaika humul gafilun yàlla nee na dañuy dem ba gën a suufe rabu àll yi mooy tey fi ñu toll nga gis góor ak góor di sëy góor am jëkkëru góor jigéen am jëkkëru jigéen ñuy sëy ci mbedd yi ah di def yëfu njaay àll yoo xam ne sànq sama soxna daf ma dafa doon ubbi internet xam ma lu mu doon def rek mu gis benn jigéen boo xam ne xaj moo koy tekkil ci tengoos xaj jàpp ci tengoos bi di ko tekki mu tiit yuuxu ne ma kay xol li mu ne ko yi kenn du ko wane boo ko gisatee rek boo da ngay cliquer romb gis nga xaj di sëyeeg nit xaj suñ demee ba xaj di sëyeeg nit fu ñu jëm mooy mooy mbirum rabu àll boobu yàlla di wax dafa am ñoo xam ne seenu rabu àll ba léegi ñoom loolu lañ continuer loolu lañ jël waaw fexewuñu pour seen ruux ëpp seen jëmm xaywaan bi léegi nag loolu ñu bukk askanale yàlla beneen bi mooy même yow mi nga xam ne sax da ngaa utiliser sa côté connaissance ak sa côté xam-xam même yow bi mbirum bàyyi ma bi bàyyiwu la pour nga am doom nooy def pour ñu am doom nu ñuy def dañuy sëy sëy koy def nooy def da ngay ñëw ci digg mbedd mi di sëy nooy def lu tax ngay nëbbatu xam nga rafetul léegi na ñu bëgg a wax loolu yàlla loolu mbirum rab la rab moo ko moom rabu àll moo ko moom yàlla jomb na loolu subhanahu gis nga moo tax saa yu gisee ñuy wax mbirum doom wala ñuy waxal yàlla ay bokkaaleeg yu garaaw yoo xam ne yellul yellul yàlla wallahi alazim aaya ba mu ngi koy tëjee subhanahu subhanahu sell ñeel na ko mooy li ngeen di wax nii yàlla sori na ko yàlla sori na ko yàlla bi muy tagg yonent yi muy wax ne ñoom ñoo ko teg place am dafa wax ne subhana rabbika rabbil izzati mu ne wasalaamun subhana rabbika rabbil amma yasifun subhanaka sell ñeel na la yow yàlla rabbil izza yaay borom tedd nga amma yasifun ci ñii li ñuy melal naan yàlla ni la mel yàlla dafa am doom yàlla dafa am lay yàlla dafa yàlla sori na loolu rabbil izza amma yasifun gën a mu ne wasalaamun yàlla na jàmm nekk alal mursalina ci sama yonent yi ndax yonent yi ñoo ñëw xam yàlla fi mu nekk ñu teg ko place am moo tax yàlla ñaanal leen yàlla takkal leen garaat ne jàmm yàlla na nekk ci ñoom wala déggu leen aaya bi yonent yi dañoo teg yàlla place bi yàlla yayoo moo tax yàlla ne wasalaamun alal mursalin yàlla na jàmm nekk ci sama yonent yi ndax ñoom dañoo sellal yàlla teg ko place am ñoom ñëpp déggu leen ci kenn ci marta xoola Ibrahima dem ba yàlla ne ko sama xarit nga xanaa mënoon naa ëppal te yow bu la Macky Sall woowoon rek ne la sama xarit nga fii ngay ñëw commencé yenn saa yi ngay waxtaan sax daan ne non xanaa xamuloon ne man chaque jour ma reer ak moom fekk du dëgg doo leen sama xarit nga rek foog nga jéem a ëppal ci loolu ñu la wax ne sama xarit nga wala man chaque jour foofu laay reeree doog a ñëw tëdd si fekk xam nga ne yow mii ca korite ga ba mu la ne sama xarit nga ko ko gis mais foog nga jéem cee wax lu bokkut mala yonente yi nag ñoom yàlla muccloo na leen ci loolu sunu borom subhanahu wa taala mu ne anna yakunu lahu walad moom yàlla nan lay amee doom anna yakunu lahu walad naka la yàlla di amee doom parce que yàlla du nit beneen misaal mooy tey kenn ku nekk ci ñun fi ñan ñoo fi amul soxna ñan ñoo fi amul soxna mu leen mayoon benn ginaar bu jigéen mu nekk seen soxna wala ñu may leen benn xaru tubaab biir est-ce que da ngeen di am ak moom doom ah est-ce que da ngeen di am ak moom doom seet leen ndax ñaar ñi ànd nañ yàlla du nit naka lay amee ak nit doom la hawla wala quwwata illa billah ñu bëgg suñ jëloon nit léegi léegi may ko benn copine est-ce que day am doom du benn ànduñu ba pare ñu bëgg ko waxal yàlla subhanahu wa taala moo tax mu ne an naa yakunu lahu naka la nit di ku am xel di gëmee yàlla am na doom naka ku am xel an naa yakunu lahu walad naka la yàlla di amee doom te moom yàlla lahu ma fi samawati wa ma fi ard lépp lu nekk ci asmaan ak suuf yàlla moo ko moom suñ ne nit moo moom lépp ak nit ki de lii rek la moom lii lii kese ban moo ëpp doole waaw moo tax ci aaya beneen mu ne in kullu man fi samawati wal ard illa aati rahman abda képp ku mu mën a doon ci kaw asamaan wala ci suuf si jaam nga ci yàlla subhanahu wa taala waaye doo doomam doo daraam doo daraam mu ne moom yàlla subhanahu wa taala moo moom li ci asamaan wa ma fil ard te suñ ne moo moom li ci asamaan mooy milkan wa xalqan wa abidan milkan moo moom lépp wa xalqan mbindeef yi wa abidan jaam ñi ñëpp yàlla moo leen moom tout kenn desul waxuñu jaam yi sax waaye nguur gi lépp asamaan ak suuf lépp yàlla moo ko gouverner amul lenn lu ci rëcc ci saytaraam moom yàlla amul guddi du yàgg ba guddi war a jot ba cëg ñëw fi mu nekk ni heure bi mu nekk guddi rek mooy am ñun lu fi mu nekk ni am na ñoo xam ne bëgguñu guddi ñëw danañ nekk ci programme boo xam ne bu doon ñoom ñoo moom jant bi dañ naan ee téye leen ko wala am na ñoo xam ne dinañ nekk ci guddi po guddi gu neex goo xam ne bu doon seen sago la bëccëg du jeex du ñëw suñ ko moomoon dañ naan téye ko waaye gis nga yàlla ni mu ko neex la ko programmé benn bu nekk mu ngi ci espace am di fay kullun fii falakin guddi du jiitu bëccëg wala leelu saabiqu nahaar abadan kullun fii falakin yasbahuun kenn ku mu mun a nekk ci mbindeef yooyu asamaan ak suuf géej gi jant bi weer wi lu nekk mi ngi ci programme bi ko yàlla teg ñaari mbindeef kese la yàlla teg ci programme ñu lànk ñaar mooy kan teg jinne ñoom ñaar rek mais ñeneen ñi yàlla moo ko wax wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdi wa in min shay wa in min shay sijaada yi ngeen toog sax ñu ngi saabaal yàlla montre yi ngeen takk ñu ngi saabaal yàlla wa in min shay yére yi ngeen sol ñu ngi saabaal yàlla wa in min shay shay la yàlla wax shay lépp mu ngi saabaal yàlla yusabbihu lillahi ma fi samawati yusabbihu lillahi la wax mi ngi sàbbaal yàlla maa fi samawati wa maa fi l ard sabbaha lillahi maa fi samawati wa maa fi l ard ñaata sabbaha ñoo am yàlla mu ne mi ngi may sàbbaal man yàlla lépp lu nekk ci asamaan ak suuf ñaar rek ñoo fi féeteerlu ñaar ñaari mbindeef ñoo rëy ñaar dëgër bopp moo tax yàlla tudde leen ñaar ñu dëgër bopp ñaar ñu dëgër bopp ñaar ñu wowle mooy nit ak jinne waaw ñoom li leen yàlla wax dañoo lànk yonent bi alayhi salaatu wasalaam laylatul isra wal mi'raj gis na mikaayil mi ngi lëndëm kanam gaa ngi ñëkk mi ngi mel ne ku am naqar yonent bi ne jibril kii kan la mu ne ko mikaayil mu ne moom lu tax du ree mu ne dafa yaakaar ne bu reeree yàlla dugal ko safara dafa yaakaar ne bu muuñee rek yàlla dugal ko safara kon jàngeen ñu ne baytil maamuur néeg la boo xam ne mu ngi fan kaw asamaan bis mu nekk ñaata malaaka ñoo fay dugg soixante-dix mille malaaka te malaaka yooyu bu ñu fa duggee dootuñ duggaat kon yàlla ñaata mbindeefu malaaka la am jàngeen yonent bi ne asamaanu septième bi mu ngi kiic kiic kiic kiic mel ne tey dal bi bu ñu yéegoon ci kaw ba attantuñu day commencé naan di yëngu di baajaw yonent bi neen asamaan bi mu ngi baajaw di bëgg a daanu suñu kaw ndax ay malaaka yu sàbbal yàlla yàlla mu ne wa in min shay illa yusabbihu bihamdihi kon ñun jàngeen ci alquran yàlla mu ne nit ñi dañuy nekk ci suuf di mooy malaaka yi di leen sàbbal yàlla wal malaa'ika la yastaghfiruna li man fil ard xoola doomu aadama nekk ci suuf di mooy yàlla malaaka nekk ci kaw di ko sàbbaal parce que bëggul yàlla topp ko ko yàlla toppee day tukkil àdduna yàlla na suñu borom subhanahu wa taala delloo suñu xel mu ne wa kafaa kon doy na billaahi ci yàlla wakiilan xafiisan allahu akbar kon doy na doomu aadama war a taxaw taxaw goo xam ne day ànd ak seede shaahidan aliman moom borom bi subhanahu wa taala ñu xam ne moo wattu asamaan yi moo ko garde wala yauduhu hifzuhuma wa huwa alaliyu alazim kon ñu xam ne ëppal yàlla daf koy tere ay jullit gis nga lii lépp sunu borom subhanahu wa taala wax ci aaya bi aaya 171 ci suratu nisa di ko wax ci waa ahlul kitab lan moo tax borom bi wax ko mooy bañ a ëppal ba ñu ëppalee di dem di dem di dem di dem di dem ci mbiru Isa lañ dem ba ne Isa doomu yàlla la yàlla la ñu ne salaasa ñetti yàlla la moom yaay yàlla yàlla la yaayam yàlla la yaayam nu muy nekkee yàlla Isa nan lay nekkee yàlla gis nga gars yi ba ñu ne Isa ak yaayam yàlla la xoola yàlla bokk na ci misaal bu ndaw bu mu leen wax mu ne leen kaana yaakulaani taam ñoom ñaar da dañuy lekk dañ doon lekk ndeysaan fi mu nekk nii ku rey rey ceere bâche ba sa biir fees nga naan pootu ndox tëdd luy xew après deux heures de temps nelaw boo nelawee trois heures de temps luy xew sa biir bi ne kur nooy def kon kay doo yàlla xoolal rek yàlla ñoom ñaar dañuy lekk ndeysaan misaal bu ndaw rek yàlla yàlla terme yu rafet lay waxee terme yu rafet duuxul ñoom dañuy dem duus de te ne ñoom dañuy lekk kuy lekk waaw iblis keroog moom fekkee aadama ñu defar ko mu ne laree tëdd iblis ñëw dugg ci gémmiñ gi boobu dugalu guñ ci ruu mu ñëw bu ci biir bi mu génnaat mu cëpp cëpp ci kaw biir bi mu ne mbindeef mu yambaree ngi nii xaw ma kii fu mu nar a nekk lu mu nar a def xaw ma lu ko yàlla nar a sant waaye ku yambaree ngi nii ñu ne ko lu tax nga wax loolu mu ne daa am biir ku am biir ku ne ku yambare nga ndax saa yu la sa biir soxlaa nga bàyyi li ngay def wuyu ji biir bi bu la biir bi soxlaa ci lekk nga wuyu ji ko bu la biir bi soxlaa toilette boo doon compter ay milliards biir bi ne gurur nooy def da ngay bàyyi mu ne yambare ngi nii ndeysaan wala ndeysaan gis ngeen yàlla nag subhanahu wa taala yàlla weesu na loolu yàlla paase na foofu yàlla jomb na loolu moo tax mu ne ñoom ñaar dañ doon lekk kon naka ngeen di waxee ñoom ñaar yàlla la intahu arrêté leen bàyyi leen loolu loolu yëpp nag li ko waral mooy jayaate mooy tey lu am sunu diine bi jay nit ñi jay lu ne nga dégg ñu wax lu ne yenn saa yi sax ci tarixa yi waaw dimb dégg naa benn rajo wallahi diw du nit ku ne nit la yow xamoo ki ëpp na nit inne waaw mii bu ëppee nit lan la xanaa dëmm la ëpp nit ku ëpp nit lan nga wala nuuxóor wala jinne wala lan nga te yooyu yëpp boo leen boolee yàlla nee na nit moo ci gën bu yàlla ne nit moo gën ñu ne nit kooku gën ñëw doo nit xas nañ la wala qad karram naa wa hamalnaahum fil bar yàlla sax wax na malaaka yi usjudu li aadam sujjootal leen aadama te aadama nit la xoolal malaaka ni mu toll malaaka du lekk malaaka du naan malaaka du sëy malaaka xamul bànneex xoolal malaaka ni mu sellee yàlla mu ne malaaka loolu yëpp nag sujjootalal aadama est-ce que loolu du teddange léegi nag yow ñëw ne la yow doo nit mais xas nañ la mais xam ngeen loolu yëpp du ko waral mooy ëppal ëppal mooy tax nga ni nit du nit ëppal moo tax nga ni borom xam-xam bi weesu na xam-xamam kii dégg naa benn benn borom xam-xam bu dee ñu ñëw suul ko ba pare ñu ñëw di def cérémonie tukulóor la nag ñu ne oo ko wawno nde o wuuri nde ko joni nde o maayi nde o ɓuri ɗum wawde degen wax ɓe dega ko ñune kii limu ɗon def bi muy dundu tawi bi mu deewe la ko gëna mën a def te moom bi mu doon dund moo doon sang boppam bi mu dee dañ koo sang ay waay ndeysaan moo doon ah solal boppam yére bi mu dee dañ ko sang solal ko yére sang ko da doon dox ñu yenu ko ñu ne bi mu li mu doon def démb tey la ko gën a mën te ñoom ñoo ko defal lépp allahu akbar xel xel moo dem xel moo dem bu xel demee rek ëppal am bu xel demee ëppal am waaw bu xel demee ëppal am ndeysaan su xel demee dafa am benn waay bu gëleemam réer mu ñëw ci benn kër di ko wër mu gis leget gi dëpp mu dippërndi ko ñu ne ko looy set sama gëleem waaw xel bee dem xel moo fa nekkul xel moo fa nekkul nit bu amee xel bu amoon a xel dina dëppërndi leget gi lu tax mu dëppër ni ko xel moo fa nekkul mbokk sunu xel moo dem ñun Sénégal jullitu Sénégal sunu xel dafa dem léegi dootuñu dootuñu dootuñu xalaat sama benn xarit photographe nee na dafa nekk ci benn reportage ñuy waxtaan ba caaga rek ñu débordé dugg ci affaire wu diw nit laak du nit ak yéen da ngeen a feebar ak yéen xam ngeen ne kooku mu ne leen mais man li ma jaaxal moom moom dane moom mooy jëwriñu yonent bi waxul na sax man yonent laa moom ci moom dana maay jëwri ñu yonent yéen ngeen nekk fi ne du nit te moom nee na man maay taaliba yonent bi ñu ne teg ba caag ñuy ñibbi benn waaye ne ko mais xam nga tey yow wax nga yow nekkee da ngaa jàng muy yow yow garaaw nga de mais ba pare nga nekk fii di photo est-ce que suuf parce que lu tax ñoom àndu ñoo xel mais xoolal bi mu leen jéemee indi am na ci ku raisonné mais nit ñi nag dan du nangu raisonné léegi nit ñi moom dañu bëgg dañ leen bëgg a bàyyi rek ñu def leen ay xar di leen diri rek di leen diri rek ba biir jahannama ñu sànni leen loolu nag ku am xel daf koy bañ saa yu ñu tàmbalee di ëppal ci nit di ëppal ci nàngam di ëppal fu ñuy jëm mooy mawdu dars bi mooy lan liiral mawdu bi ci kaw baabun maa jaa an anna sababul sababu kufri bani aadam wa tarkihim diinahum huwa alghulu waaw xam nga loolu yëpp lu mu ñuy jural sabab bi mooy bani aadama jullit bi day weddi yàlla soo weddee yàlla nga bàyyi sa diine kon war ngaa xam lépp lu lay weddiloo yàlla di la bàyyiloo sa diine war nga koo xam nga xam foo ci yem nga bañ a ëppal ëppal baaxul ci dara rawatina na nga jël nit ñi di leen ñoddi di leen ñoddi di leen ñoddi di leen ñoddi di leen ñoddi ba fekk day ngeen fi fii fii day ngeen fi ku ne man fi yonent bi toogoon su guddi rañaan toog naa fa ñëpp di dégg dem naa ba fi yonent bi dem kenn ngi ne man weesu naa foofu ah léegi kon yow xanaa yow dangaa dem ba toog nekk yàlla fi mu nekk naka la jullit di waxee ne man dem naa ba yonent bi alayhi salaatu wasalaam 16 bu mu toogoon toog naa fa yonent bi de bi muy dem yàlla moo ñu wax nan la ko yóbbee subhaanallazi asra bi abdihi wala da ko yónnee jibril ak alburaq yonent bi tegu ci léegi nag waajee moom bu muy dem fu mu jaar lan lañ ko indil tey boo leen boo leen laajoon mbokkam yooyu wala moom nga ne ko ci loo yëg mu ne la alburaax moo ñëw ndax ñeme yàlla dëgër fit waaw Sénégal moom booy ut ku ñeme yàlla ku dëgër fit rek ñëwal fii lu ne ngay dégg laa la wax ci rajo yeeg kaset yeeg télé yi di nga gis ku wax a wax a wax a wax wax wax ba yow daanaka soo moytul boo tëddee guddi doo nelaw ndax musiba yow dégg am naa sama benn goro bu buy seetaan télé jour jour jeudi ci guddi day dégg ba caag mu ne mu ne penati yi lii de penati yi la mu ne kaay déglu penati yi loolu la kaay déglu penati yi su kenn waxee mu ne huu kii moom bii raw na penati yi wala loolu rek loolu musiba la.
xam nga am na si benn sëriñ bu ma dégg mu ne jamono bi jamono coow la ku mënul coow yaa tooñ sa bopp.
jamonoy coow waaw loolu du diine nag jamono jamonoy coow la ku mënul coow yaa tooñ sa bopp non non diine amul coow diine dañuy leeral dëgg bi mais léegi bu nee naa tuur nit ñi wax rek naa leen tuur coow ñi ñëw topp ma après ëllëg yowmal xiyaam ñoo ñëpp nga ne leen yóbbu safara loolu léegi ban njëriñ la am moo tax yonent bi doon wax innama axaafu aleykum ñu ne ah mu ne aimmatil mudillin li ma ragal ci yéen ñu ne yonent bi lan la mu ne njiit yuy réeralaate moom ma am tey aimmatil mudillin wa ida waqa alaykum sayf lam yurfa ila yawmi qiyama mu ne bu jaas ji tàmbalee deret tàmbalee tuuru dootul taxaw yowmal qiyaam rek mooy la am tey chaque jour ay milliers de personnes ñooy dee tey jii ah fi ñu nekk ay junney junney junney jullit ñooy dee par jour junney junney jullit ñooy dee wallahi boo doon déglu information pays alamul islami lii dee par jour li ñuy rey ay junney junni la fuñ jëm te loolu lépp dara warlu ko ñii seen nguur ñii seen bànneexu bakkan ñii seen ban ñii seen ñii seen mbooloo ñii seen ñii seen rek ku nekk di aar li nga toog au lieu diini kon bokk na ci li ñuy dimbali mooy genre téere yu mel nii dars yu mel nii ñu koy fekkee di xam li yàlla wax ak yonentam ñu ñaan borom bi subhanahu wa taala mu defal ñu tawfiq kon lii mooy dars tey ba talaata ñëwaat. am nañ yàlla taxaw